problème. nan la Balla Gaye war a ñëwee. da jaax daf ma bàyyi ci biir de. dama doon question mu ko posé nii daf cee war a tontu de. ah waaw yaa yor ko tontu de. Mado. ah. bàyyi ñu gérer ko rek. laaj ko waaw moom moom moom. laaj ko laaj ko daal deux fois moom. laaj ko moom moom moo la mën a jox. jàmbaar foog nga may ma minute de. Eh, eh, wuyu wuyu ma ne ko may ma minute rek. non moom mën ma may minute. ah. mën ma may minute. xool ko waaye. non non moom xam nañu mën ma ko may minute. non jaarul na may ma minute rek garaawul. am ko la daan deux fois. mu ànd la et eh, troisième fois bi ñaata temps laa lay ma ñëw. troisième fois doo ko jox trois minutes. non moo daan moom la bàyyi ma gérer ko rek. Mali bu ko forcé bàyyi ma gérer. ma ne Mali bu ko forcé. nee nañ na ma wax deux minutes fekk daf may naax bàyyi ko rek may calculer lu mu génn fi rek. moom champion la quoi champion d' Afrique moom wax dëgg yàlla da nga koy jox cër rek. Malick. loolu mooy yoon stratégie yu garaaw la ñu nekk di teg. ku nekk yaa ngi jéem a dox sa xelu Pape Euh, man dama leen bëgg ku ne mu poser la benn question. Mhm. Euh, Balla tey ak un peu de recul euh, soo dem jël di nga signewaat quatre contrats yu tegloo ay mbër kaamil nga xam ne xam nañu làmb bu ëmma jàmb fii booy ñaa mu ngi fii bombardier mu ngi fii ñële loolu lan moo taxoon nga def ko ci tolluwaay beneen bi sànq ñu ngi ciy wax. yaa ngi tudd Messi tudd yooyu yëpp macha allah ci 18 ans de carrière am ci victoire jël ci bëree bëri est-ce que teel a am ndam yu bëri bëri yooyu handicapé wul un si sa carrière boobu benn la mun nga cumuler ëmma tamit presque vingt ans de carrière wala mu ëpp ko nga am ci ay ndam am ci ay défaites lan mu expliquer longévité boobu pour mbër yi lay seetaan lan nga mën a tamit teg seen loxo gannaaw Balla bu ñëwee ci quatre combats yooyu mu teg la jël ko lu tax avec le ndax di nga ko jëlaat wala déet. mais bien sûr boo xamoon léegi dama koy jëlaat parce que mooy suma métier. di gars yi di dem ci bureau yi laay xëy di dem ci entraînement yoo di dem salle wala dem diin wala nga dem géej wala nga contact parce que mooy suma métier moom laa am moo ci noppee rek noppi naa ci mais bon victoire aussi tamit yàlla moo koy joxe euh, ba muy dugg ci làmb ku def sept ans nekk roi des arènes daan ñu fi mun ñëpp aussi tamit loolu mbiru suñu boroom la. du man maa koy décider wala man maa koy joxe nga xawoon naa ko ne xaw naa fi def lu gën a mu am handicapé un peu yaa ngi wax euh, xale nga euh, mais peut-être ci fin bi da nga dem ne ah daan naa yëkki nii daan naa ñi fi nekkoon li ci des daal est-ce que xaw ñëw sa esprit nga xaw ko oyofal voilà teggi tànkam tuuti quoi non du loolu sax xam nga man mënuma naagu parce que ku màggee ki yoroo ci keppaaru koo xamante ne def na loo xamante sax defoo kon sama papa nekk na champion d'Afrique dem fu ne jël lu ne gis lu ne man bu ma gisee te loolu defu ko dara amu droit di naagu xëy na bon suñ borom moo jaglee noonu ay mbiram rek. est-ce que embourgeoisé wu tamit surtout parce que dafa mel ni da nga embourgeoisé wu embourgeoisé wu mooy <laughs> léegi macha allah euh, xaalis bi euh, xaw na takk tuuti <laughs> ah euh, voiture climatisée. kër climatisé yo yo ak mbeur nak da am lu laaj quoi bala Balla légui patron nga de légui est-ce que patron gogo nga nek tay du tax légui boy dem entraînement motivation bi ci war ah ray sa bop bi ci war ak ñi nga xamni ñoy and ak yow euh, manam commandement biñ la wara commander sax est-ce que dina ah, am mayeti nga len lolu non mais malik milliardaire sax ci kilim lañuy yow yeewoo sportif lañu au niveau te ay milliardaire lañ seen waxtu liggéey bu jotee dañuy dem liggéey sànni da ngay vaar ak ay kilim wala oto wala nangam parce que loolu fii lañ ko fekk quoi non <laughs> man boo ma fekkee man laay foowee ba léegi nii may wax yow. mais coono yi nga daan daj est-ce yaa ngi koy daj. baax laa ko gën a que imagine toi yow ci zéro nga commencé. Hmm. di daj coono ba yàlla dimbali la nga mën a zéro lu bari mais coono boobu chaque jour da ko war a tàmm parce que moo nekk suma yaram. Hmm. bëgg naa gën a évoluer ci li ngay wax ni kon nekk. am xaalis gën a ouvrier aussi tamit ci am lépp mais loolu boo amul ay coono mënoo ko mënoo ko am. benn instant da nga xawoon jël tuuti recul par rapport ak école de lutte a Gaye mais delluwaat nga fa de. non xam nga day toll boo xam ne comme par exemple tey maa ngi doon def li mën a def mais école ba nit ñi ñu fa contact parce que boo fa demee nit ñi dañuy ñëw fekk si la xale yi supporters yi doo doo mën a sax. liggéey li nga bëgg quoi. ak ak léegi da ngay dem géej wala nga dem diin loolu. moo tax ak yi. ak espion yi ñëw rax ci biir. <laughs>